félicité ci euh, deux trophées yi nga xam ne jël nga ko benn bi ci euh, sa entreprise ak Aquaterra euh, beneen bi nag en tant que manager tey yan impression nga am. sant yàlla rek. sant yàlla parce que liggéey bu yàgg la. voilà depuis depuis quinze ans léegi ñu ngi ñu ngi bay suñu waar ci lu ñu yàlla dénk ci xam-xam ak ci moyen pour pour développer comme man dama nekk ku bëgg tout le temps di def ay résultats parce que. voilà donc su ma egsee fii tey dama koy sant yàlla euh, sant si samay waajur bu baax ak suma famille voilà donc te xam ne liggéey rek moo mën a may donc xale yi inspiré wu ci parce que voilà man tukki wu ma dem extérieur pour ñëw def li ma def nii fii laa juddoo fii laa màggee fii laa jàngee voilà fii laa defee li ma def yëpp donc c'est possible na xale yi jël exemple boobu puis mhm. ñu toog jéem a liggéey suñu réew voilà alors malgré nga nekk benn chef d'entreprise aussi da ngay euh, lu bari ci social mu mel ne social boobu sax moo jur tey jeunes yu bari nañu tey dañ lay tàbb ngeen nga doon seen candidat hmm. euh, ci élection présidentielle yi di ñëw nan nga gise sphère politique bi fii ci biir Sénégal bon du ma social duma ci mën a wax lu bari parce que voilà euh, bi ma koy def dama ko doon def rek te te yàlla tax parce que nit aussi su la yàlla dimbalee. Hmm. da ngay da ngay da ngay gestu nit ñi da ngay da ngay delloo njukkal ñi ñi la jege. waa sama yaay daf may faral di wax ne ma du ma ne ko naa mënuma koo tane dimbali ko donc bi ma nekkee tout tànk ba tey maa koy dégg donc suma ma yàlla fii ma def social daf may wax waaw si sama jukko la bokk. Euh, président ñu gis ni à chaque fois aussi euh, si say discours da ngay employé li nga xam ne moom mooy le mot la jeunesse tout le temps dañu gis la jeunesse ba si say yeneen interview wala say discours dañu gis tout le temps da ngay prononcé mot boobu noonu jeunesse bi fan la toll ci yow. xam nga tey damay xam nga kilifa dafa am ñaari façon dafa am kilifa boo xam ne mat na kilifa mais du wax dëgg am kilifa boo xam ne man na kilifa te day wax dëgg te xale yi suñ leen waxee dëgg sensibiliser leen waxtaan ak ñoom wax leen li nga xam ne moo fi am mooy xale day am valeur xale day respecté magam day respecté waajuram su xale yi nekkee ci woogu ba pare pour wax leen kaa leen da day yomb waaw maintenant su fekkee nag dañoo jàpp xale yi waxuñu leen dëgg voilà di leen inciter à ceci ou cela day xaw a compliqué moo tax tout le temps man may revenir ci ci ci ci sama discours woog di ci revenir parce que xam naa ni c'est possible xale Sénégal xale yu am jom lañ da ngay xool soo génnee gis ne xale di ñafee guddi matin midi soir da ngay xam ne xale yu am jom lañ maintenant lan moo des mooy conscientiser leen ba pare accompagner leen voilà alors Mamadou Yatassaye candidat à l' élection présidentielle alors lan moo motiver sa candidature est ce que da nga bokk ci entrepreneur yi nga xam ni dañu jàpp ni euh, l'homme modèle pour Sénégal ñu am président bi gën du doon cette politique politicienne mooy ñi nga xam ne ñu ngi déjà def dara ci réew mi. bon tey su ma ko waxee fii. Mhm. ak su ma ko nëbbee su ma ko nëbbee sax je serais pas sincère. Mhm. mais pour pour pour beaucoup de raisons dinaa ci wax tuuti rek tuuti. Mhm. mooy Sénégal moo soxla changement. loolu moom c'est indéniable muy man muy sama moroom koo génnoon si dëkk bi ko dékk micro mu ne la Sénégal dafa soxla changement ñun ñu ngi juddu après indépendance boobu ba tey ñi ñu daan jiite ñoo ñu jiite ba tey te ba tey même problème mu ñooy am te xale yi suñu sonnee ñun ñi nga xam ne tey ñun ñoo leen njaboote ñu ñooy sonn donc il est important aujourd'hui comme man ni ma jëlee samay responsabilité ñeneen ñi jëlee noonu seen responsabilité xale yi aussi dimbali ñu jël seen responsabilité parce que il faut un changement radical dafa jot daal dafa jot on est en 2023 Sénégal am na fi lu nekk am nañ am nañ pétrole gaz zircon am nañ fi lu nekk te suñu population elle est jeune donc le problème c'est quoi c'est les politiciens donc nañu changer on va essayer de changer donc ni ma jëlee samay responsabilité noonu laa leen di ñaanee ñoom ndaw ñi ñu jël seen responsabilité parce que Sénégal aussi c'est pour nous les jeunes voilà. nan nga gisee nombre euh, candidature bi donc ñu bëri dañu dañu jékki-jékki rek gis nombre bi ñu bëri aussi dañuy dañu jàpp ne que dafa bari de trop yaakaar nga ñoom ñëpp dinañ passé ci li nga xam ne ne moom mooy sélection bi avant ñuy egg même ci vote yi. xam nga dañu dañu jëm ci parrainage ku egg ku matal lim biñ la laaj. am nga sañ-sañ soo amee sa caution nga dem soo amee sa moyen de ta politique nga dem jongante daagaan baatu askan bi loolu citoyen bu nekk sañ na ko maintenant ñi fi nekk di ko xëccoo ñu ne deux cent lañ cent lañ cinquante la de toute façon li am importance ba importance mooy man ni ma ci gis xam naa ne ñii am nañ vision pour Sénégal et c'est important man loolu rek moo ma ci amal solo voilà na gars yi gëm li ñuy def et puis qu'on arrête cette politique politicienne là parce que yóbbuwuñu fenn depuis depuis quarante ans soixante ans on est on est là à faire de la de la politique politicienne lan nañu yóbbu dara. voilà donc c'est c'est c'est tout c'est vraiment loolu c'est un cri de cœur quoi. il faut que xale yi ñu éveillé wu ñu yeewu ñu jug ñëw ndaw da nga koy utal pexe. soo ko utalee pexe après mu dem ak boppam. mais ils sont restés à eux-mêmes kenn dimbaliwu leen kenn jàppalewu leen loolu man su ma toogee di ko seetaan je serai complice. donc sañ naa taxaw man ne ah kaa def nangam suñu ñëwee xayrun suñu ñëwu suba je serai le témoin de de l'histoire pour dire waxoon naa leen teel jamono kaa def nangam ak sangam c'est tout. ay jigéen yi nga xam ne jot nañ ay trophée est que tey bés buñ la falee di nga taxawal li nga xam ne wala jàppale jigéen yi pour pour wax li nga xam ne mooy l'entrepreneuriat féminin. xam nga tey fi mondialisation toog entrepreneuriat amatul féminin ak masculin. question de formation la ak de de ak jàng il faut ñu bàyyi xale yi de zéro à dix huit ans ñu bàyyi leen ñu jàng muy góor ko muy jigéen de dix huit à trente cinq ans ñu fexe ñu am métier suñu ko defoon Sénégal mooy gën a avancé ci àdduna c'est tout ce qu'on a besoin arrêter de faire des promesses aux enfants nañu bàyyi xale yi ñuy dikk yu ñu di dikk dara amu ci. Mm-hmm. ça fait presque soixante ans ñu ngi dikk xale yi il faut qu'on arrête ça. il faut que ndaw ñu ñu déggu li ma leen di wax. Mm-hmm. man su doon pour man kese ma toog jàpp sama ñàmb. je vis ma vie. mais su ma taxawee dëggal sama bopp ne leen eh génn yeewu mais parce que c'est le bon moment si on rate ce tournant de 2024 là non c'est fini pour nous. maintenant man ak ñoom ak ñeneen ñu ñëpp on est face à à l'histoire maintenant on va essayer d'écrire l'histoire du Sénégal c'est tout. communication dañu on est au dañuy xeex cancer donc fii aussi au Sénégal quand on parle de cancer du sein ñëpp dañuy xalaat jigéen ñi alors que cancer du sein day jàpp aussi ñi nga xam ne ñoom ñooy góor ñi te góor yu bëri xamuñu ko donc communication boobu aussi nan la nar a demee ci côté santé bi. bon côté santé comme man sama samay structure mhm. muy sama côté entreprise dama am RSE. ñoom ñooy toppatoo yooyu su dee côté waagu politique am naa comité euh, bu chargé des des trucs santé nangam ñoom dinañ toppatoo mais daal jàppal ni ñun niñ ci mën ci defar Sénégal muy santé ak éducation ñu ngi ci maintenant yàlla mooy montag yàlla na yàlla montag suñu yéene voilà